bon la famille mën naa ne séquence bi nii mooy séquence bi nga xamante ne moom a gën a touché biir série bi nga xamante ne moom moo di Babel ndax soo xoolee Fatou Bintou actuellement ñëpp tourné contre moom maanaam moom amatul lenn li nga xamante ne mën na ko def ba mu euh, mujjee saf waa kër yi ndax soo xoolee ñëpp ko teg bët te tamit moom. Eh, li nga xamante ne ñu ngi ko koy jiñ te moom mu leer na ni moom defu ko loolu leerul ba léegi waa kër gi ba tax na daal ñëpp eh, tourner leurs yeux contre elle maanaam daal ñëpp dañoo tourner seen bët ci moom mu nekk moment yi nga xamante ne nag eh, képp ku mu daloon na. si biir diwaanu Sénégal fii dina métti de trop pour nga euh, gérer ko bien vrai que am na ñi nga xamante ne ñooy ñoo ngi dund lu gën a métti loolu waaye mu dem sax ba sa jëkkër di tourner euh, contre yow yow nga nekk yow kese dese ak yàlla loolu dina nakari de trop pour ki nga xamante ne moo di Fat Bintou daal di euh, survécu ci moment yi nga xamante ne mu ngi koy dund ndax soo xoolee daanaka li nga xamante ne jot na ko def. si kanamu kii nga xamante ne moom moo di xalil moom moo gën a poussé jëkkëram à ce que mu daal di koy a euh, bàyyi mu daal di koy euh, traité de tous les noms woon que ni man li ma la doon yaakaare lépp ndekete yow da nga foo bien vrai que ki nga xamante ne moo di euh, Khalil moom joxoon na ko bopp te considéré woon na jabaram bi et lépp li nga xamante ne santoon na ko. Euh, jawab di jawab di da ko def wae, dafa découvrir dekor ko dafa dafa découvrir ci moom beneen visage bi nga xamante euh, tak ak fat bint moom euh, bi mu ko doon woon maanaam comme mbirum jënax rek dafay mant di ëf day mat di ëf di mat di ëf ba ñu yaakaar que ni kii ku baax la alors que tel n' est pas le cas waaye selon nous ñi nga xamante ne ñooy seetaan ñun xam nañ bu baax a baax que ki fat bintu melul waaye dina nakari de trop ci euh, waa kër gi waa kër Babel euh, ñu découvrir euh, vrai visage am kër yi moom lépp li nga xamante ne moo ngi koy def ngir jàmm kër gi la ngir jàmm néegu sëy moo tax ma di ko def waaye nekkul réellement pour toroxal wala métital kenn ci biir kër gi képp kuy soppee Fat Bintou maa la ñaan àsak nga abonné activer cloche bi aussi nga def ay kër ci commentaire yi jaa ngeen jëf merci beaucoup Séné Production